sëñ Saliou boole ñoo ak Cheikh Béthio ñu daan toog si benn bassan la Diop bi muy jàppale président Macky Sall otoom laa doon jël otoom lañu daan yor di si def ay track di ko di wër géej waaye di ko taf ay jamono booba APR amagut Lat Diop dëkk cité des enseignants daj si lu ne nag lu ne mu daj ko ci yaa ngi dégg yàlla nattu ma ma am problème dem si kaso bi bi ma demee sama kër maa ko yoral sama bopp ba ni ma ñibbisee ba fii may waxee ak yow te bis tey maa yor sama kër samay waa kër xiifuñu maruñu raflewuñu fañ doon jàngee ba léegi fa la ñuy jàngee aw ma problème boobu maa ngi sant yàlla la jot ñëw si sama njaboot andil leen dund gu doy sama soxna ma woo ko mu ne ah, Lat Diop de ñëw na fi tey andi na fi tonu ceeb jox na ma téeméeri junni parcelle sama beneen soxna bi woo ma wax ma loolu mu soxe ma ndax bi muy indi tonne ceeb bi fii trois tonnes ceeb a si biir kër gi ma ne ko ceeb boobu nekk foofu génne ko ko jox ko responsable yi ma ko daan jox weeru koor ñoom ñëpp jox leen ceeb bi leen la jóob jox dunde leen ko mu néew mu bari mais geste bi laa jàpp reconnaissance bi amul benn responsable affaire ak lu ma daj ci parti bi yëpp te ku ci ne defal naa la teraanga ba ci Aliou Sall defal naa ko teraanga ndax ñëw na ma boot ko taxaw xeex la ko j'étais son directeur de campagne mu wax ma ne ko billaay laay la si boo gañewulee ma bàyyi ma xàcc génn si yoonu murit bañ ko songee ci pétrole bi maa ñëw taxaw ko bi sama problème yi amee man Aliou Sall ñoo fanaan guddi googu mu xam lépp lu xew waaye dafa rafetoon. xam nga dafa rafetoon rek ñu def benn geste ne nañ leen dem kat xooli njabootu Bougazeli naka la ñu toogee soxla ma seen dërëm mais defuñu ko Lat Diop moom ñëw defal ma geste boobu ma ni man sama ngor mayu ma Lat Diop di bëgg dara ma di ko bëgg ma bokk ak moom. ndax geste bi te loolu laa ko jàppee te danaa ko jàppale. parce que bu dul dara tamit am na compétence yaru na nit ku baax la ku bëgg la ku ku social la. kuy dimbali président la ci askan bi Lat Diop xol bu rëy la yor te nag Golf Sud toll nañ foo xamee ni soxla nañu am doomu Golf Sud bu toll noonu am xam-xam bi investi ba noppi def fi ay euh, investi si dëkk bi ci ci commune bi jot nañu jox ko maire bi mu liggéey te man dinaa ci xeex corps et am ba mu jot ci maire bi